السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب إنسان تيال جلت صفا بسيرنا محمد صلى الله عليه وسلم نيجي جيخال إن شاء الله تايتي حديث بيغا خامتن موم موي سوني فكيل حديث بيغا تي بلوغ المرام من الله الأحكام بو الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله li nga الله nak euh maanaam kon gis nañu baat yi gis nañ taxriij yi gis nañ taxriij bi gis na gis nañu baat bi gis nañ li nga xamante ne moom moo aju ci mm, ma yenn masala yi yi aju ci wàllu sàkku xam-xam ak ki nga xamante ne maanaam moom moo koy kii jàngale ak aju yenn masala yi nga xam tamit aju woon na ci wàllu fiqh bi insha allahu taala kon mm, euh, léegi dañuy jàng xadis bi insha allah ñu daal di am benn wala ñaari masala yoo xam ne dañ koo euh, maanaam ci masala fiqhi la yoo xam te ne waxuñu ko woon jotaay bi wees bu ko defee ñu dugg léegi nag ci masala euh, usuli yi insha allahu taala bismillah billahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim wa an anas ibnu malik radiyallahu anhu radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu annahu qaal jaa arabiyun fa baala fi taifatin min al masjid الناس في طائفة المسجد في طائفة المسجد فزج له الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي بوله بذنوب من الماء فأغرق من ماء بذنوب من ماء فأغرق عليه متفق عليه آه، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله نانا عن وعن جرن انت ابو هر... آه، آه، آه، انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال محنا جاء ديكنا عربي ابكوكو فبال مداد سو مانا متو نخ في طائفه المسجد تي بيغو جاك دي سجدره الناس نيت ني دار كوي جاج تيره كو نيكو بايل اتا اريت اريت اريت ستوب نانا اتا نينا فنهاهم مترل النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم ñub def fof précision فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مو نيك تي ين اديسيون يي كوم نيغا خامتاني نون لا نيكي تي ليفر بي ني واخ مام تي اديسيون ييغا خامتاني موم لا غاي يور واي كوم نيغا خامتاني نون لنج كو واخا وون رواه بيغا خامتاني موم لا اندي دونت متفقون عليه لا حديث بي كوم نيم كو ليرال واي تي الامام البخاري رحمه الله تعالى موم لا روايه بي te ni mu ñëwé ci sahihul imam al bukhari rahimahullah mom moy fa nahaahumu nabiyu sallallahu alayhi wasallam kon mokkale ko non mom moy li nga xamanteni mom moy mooy li gën insha allah kon fa nahahum mu tere an nabiyu yenent bi sallallahu alayhi wasallam falamma qada falamma ba nga xam qada pare na bawlahu sawam turum turna ndox nak léegi ba pare amara digle na an nabiyu yenent bi sallallahu alayhi wasallam sallam bi danubin ci siwo bu fess dal mi ma ak ndox fa uhriqa alayhi ñu sotti ko ci imam alxaafis ibnu hajar rahimahullah mu daal di ci teg ne muttafaqun alayhi hadis bi ñaari imam yi dëppoo nañ ko ci solo ko moom mooy al imam abu abdullah muhammad ibn ismail al bukhari al jufi al bukhari ak abul husayn مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله عليهما نيوم نيار نوكو بوك سولو سي سين صحيح ليغا خامتاني نيوم نيو تيري ليغا خامتاني نيوم نيو غنا دغور تي نيوم نيو غنا وير غيناو القران الكريم كوم ليغا خامتاني نون لنجو ليرالي وون سي شرح بي اما نك ليغا خامتاني موم مو اديو سي مانام مساله فقه ليغا خامتاني موم لنج دون دوندي ليغي ني نيوم نيار نيوم نيوي مساله ليغا خامتاني نيوم نيو داس مساله بو نديك بي موم مودي مانام ndokh su fekke manam manam moy ni nga xamantene mom lañuy labalé ñuy bi manam ndax dafa fekk ne euh charia dafa teureulal kenn lenn lu ci nekk ak façon biñ koy labalé le fait que masalan bu fekkente ne ci walu yére la muy wax ne nañ ko nañ ko raxas nañ ko fóot comme ni nga xamné non la ñëwé ci hadithu asma bint abi bakr radiyallahu taala anhuma bi nekk ci ñaari saxeex yi bu imam al bukhari ak bu imam muslim rahmatullahi alayhima nga xamantene ne daf ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko la ci walu yere bo xamantene manam euh deret mbërëg daf cee dal mu ne taxuttihi summa bil maa'i summa tandahihi summa tusalli fihi li nga xamantene mom moom ngay def moy dang koy xoss après nga fete ko ak ndox manam après nak nga dadi ci nga daal koy wiss lenkali ko ndox bobu legui nak bu ko defee nga dadi meuna julli ci yére bobu niki nonu bu fekkente ne masalan yaram la tamit dafay wax nañ ko raxas ak yu mel noonu ci la ñuy ak ba pare fii nag comme li nga xamante ne noonu lañ ko junjee ci jotaay bi weesu dafa am rek benn précision bu ndaw boo xamante ne teguñu ko ci woon te précision la boo xamante ne mat naa bàyyi xel moom mooy le fait suuf si mu ne nañ ci sotti ndox yéele mu ne nañ ko fóot nañ ko raxas loolu mooy tegtale ne maanaam mbir yi ay façon la maanaam Euh, yi ñuy raxas bu si sobe lale ay façon la dafa am yoo xamante ne manoo koo bu fekkente ne lu ñu mën a yëkkati la man koo toxal man ko jëlee fii yóbbu ko fee boobaa da ngay obligé nga raxas ko raxas boo xamante ne dañ koy raxas raxas boo xam ne day ànd ak weñ wala yu demee noonu amma su fekkente ne lu ñu mënul def loolu la comme masalan garab garab kenn munu ko toxal comme masalan suuf si kenn mënu koo toxal ak yu demee ne que noonu bu boobaa nag dañ ciy sotti ndox moom lañ ci sotti ndox loolu lu ma ta bàyyi xel la ce qui veut dire que ni comme masalan yére bi boo ci sottee ndox kese bu ci sobe dalee nga sotti ci ndox kese du doy il faut nga fóot nga fóot ko nga fete ko ba mu des xanaa bu dee ay sawum liir la wala mu nekk sobe boo xam ne dañ koy jéggale wala mu liir bu góor moo tax may wax bon yooyu masala la yoo xam ne incha allah dinañ ko gën a leeral bu njëkk see ci baabu izalati izalati najasati wa bayaniha loolu dañ ko leeral insha allah taala dinañ ko yaatal question yi aju ci yooyu yëpp nan la ñuy dindee sobe yan ñooy sobe yan ñoo dul sobe nan la ñuy dindee et cetera yooyu yëpp dinañ ko leeral insha allahu taala yal nañ yàlla may ñu fekkee ko ak tal ko ba pare fekk buñ cay yegg suñu yegg ci suñu ngëm yàlla bu mat sëkk ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon li nga xamante ne maanaam kon loolu benn masala la boo xamante ne masala la bu am solo kon ce qui veut dire que tey masala tey ñu ñu jël exemple tey bu fekkente ne par exemple kii bi tapis bi dafa am sobe bu ci nekk maanaam il faut ma jël ko ma sotti ci ndox bu ma sottee ndox léegi nag il faut ma raxas ko raxas boo xamante ne day day day dama koy xoos wala bokk maanaam il faut daal ala kulli xaal sotti ndox bi rek du doy il faut que ma xoos ko ma kii ko ma dindi ko maanaam de telle dinaa ko mën a dindi complètement mais du nekk loo xamante ne damay jël rek ndox rek sotti ci biir rek sotti ci kaw noonu rek daal dem sama yoon déedéet il faut que ma raxas ko bu dee yé loo xam ne mën nañ ko weñ il faut que ma fete ma ma weñ ko fete ko kon ñu bàyyi xel loolu insha allahu taala hmm? waaw loolu waxoon nañ ko dañu karo dañuy sotti ndox mi ba pare pomp ko fobeere ko wala fobeere ko wala ñu jël rakk la <laughs> dégg nga ba max ko mu dem ah la lañuy wax waaw ah am ah, waaw xëy na ci ñi yeneen ki waaw xam nañ ko walla dégg kon loolu mooy benn masala mu dess benen masala bo xamantene masala bo xamantene la matna naa bàyyi xel insha allah moy lan moy su fekkente ne nit ki dafa yor sobe nit ki dafa yor sobe manam def ko masalan ci sagam mu am sobe bu ci ne mu jël ko yor ko ndax amna droit indi ko ci jàkk ji wala déet li nga xamantene mom lañu wax manam comme ndax ndax ki limu def manam moy jël sobe bi diko takal jàkk ji lolou dañ koy tere lolou gisoon nañ ko am maana bu fekkente ne sobe bi dafa neubutu de telle sorte que manam du xet gi duñ ko du du du du du gilli ci jàkk ji ni ki noonu tamit kenn du ko gis ci jàkk ji du am du tak ci jàkk ji bu boba ndax nit ci am na droit yor ko wala amul droit bi li nga xamne mom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim saxal mom modi lolou amul droit def ko waye nak su fekkente ne nek na ci circonstance yo xamne ne mu def ko mën nako def ci kaw lolou ci kaw lolou daf ñuy jox beneen àtte boo xamante ne bu am solo la mooy comme ñi nga xamante ne dañoo am ay sonde par exemple nga xamante ne ñoom mënuñoo bañ a tàqalikoo ak euh, seen poche yi nga xamante ne ay sobe dañ ciy nekk bu boobaa ñoom mën nañoo ñëw ci jàkk ji julli ci te bu boobaa amul dara loo xamante ne lu leen ci fekk la insha allahu taala loolu kon masala la boo xamante ne maanaam masala bu am solo la léegi kon yooyu ci kaw loolu ñu daal di tëj insha allahu taala masala fiqi ah mhm. dugg nag ci masala yi nga xamante ne maanaam ah, masala usuliya lañ maanaam masala usuliya ah, tout le temps dafa nekk ak ak qawaid fiqhiyya yi maanaam ah, à vrai dire dafa nekk loo xamante ne dañoo gis ne parfois ñu bari duñ ko comprendre mais masala usuliya yi mooy méthodologie maanaam méthodologie yi nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi jël mu nekk règle yu ñu teg ci kaw règle boobu mom lañuy sukkandiko pour teural àtte comme tey par exemple euh manam tay buñ ne lepp lo xamné dafa contradictoire man dama jox exemple bu nit ñi di xam lepp lo xamné dafa contradictoire ak démocratie rek dañ koy tere ci dëkk bi tay buñ waxé waxee légui nak ñu daal di xool loolu kon usul la manam loolu kon ben fondement la bo xamné mom lañuy tek mu nek règle bu mag ci règle yoy nak légui nak dañuy sét bu élément ñëwé rek dégg légui légui nañ sét ñu daal di organiser ay élection yaa ngi dégg waa daal di dem brouiller carte bi est-ce que dafa contradictoire ak démocratie wala da and nak mom da contradictoire ak démocratie bo wa dañ naan dañ koy tere ci dëkk bi ndax lan ndax règle bu njëkk bi njëkkoon a teg loolu mooy règle usul règle usul par exemple tay buma né bo né sa doom ah luma la wax rek nang ko def loolu règle usul la kooku usul la maanaam mooy fondement g parce que lu général la loo xam ne ay règles yu bari dañuy dugg ay atte yu bari dañu war a dugg ci biir léegi ce qui veut dire bu ma ko yónnee boutique ba est na ko def wala waru ko def war na ko def loolu fan laa ko xamee ci wax ji ma ko njëkkoon a wax ne ko lu ma la wax na ko def ce qui veut dire que tey bu ma nee ko tamit ah demal boutique ba mu daa war a dem su ma ne demal école mu war a dem su ma ne ko te yooyu yëpp lan day dugg fan ci suufu ben règle bu mat bi nga xamantene mo nekkon ci lool lool moy usul mo différencier usul ak fiqh usul fiqh xaalu fiqh moy règle yi nga xamantene ay règle yu général lay doon yo xamne ay élément yu bari ci ay yeneene règle dañuy dugg ci biir yeneene àtte fiqh dañuy dugg ci biir alors que règle fiqh nak mom kenn rek la comme tay le fait que bima ne xale bi ah demal ma boutique bu ngi dëndal ma fa nangam loolu mu dem dik loolu règle fiqh rek la règle usul bi moy bu bu njëkk bi moy luma la wax nang ko def est-ce que leer na wala leerul. kon en fait règle. bien benn partie la ci grand ensemble. voilà c'est-à-dire que ci règle usul yi ci la ñuy génnee règle fiqh yi c'est-à-dire que règle usul yi ci la ñuy génnee règle fiqh yi. kon juróomi qaida yi gisoon yooyu ay usul la. non qaida fiqhiyya la. fiqhiyya la sauf que qaida fiqhiyya ak qaida usuliyya li bu am nañ tuuti wute. bokk na ci wute bu njëkk mooy qaida usuliyya day aju ci wax ji ci boppam. alors que qaa'ida fiqhi day aju ci jaam bi ci jëfam maanaam mooy lan comme tey bu ñu nee al amru yaqtadil wujub maanaam yàlla wala yonent bi saa alayhi bu ñu joxee ndigal loolu day tegtale na loolu farata la loolu rek yàlla nee na yàlla fu mu joxe ndigal rek day tegtale loolu farata la ba keroog ñuy am lan beneen preuve beneen mbir muy wane élément bu ñuy wane ne ndekete du farata kon loolu dañ naan la dañ naan loolu règle usul la léegi kaay ma jox la te par exemple exemple bi ma joxoon sànq léegi yàlla nee na. taxawal len julli ci kaw lolu taxawal julli lan la farata la lan motax tax mu ne farata nan lañ xamé ni le fait le simple fait que yàlla nee nañu dee leen julli rek julli farata la le simple fait bobu rek nan lañ ci xamé ni julli farata la parce que dafa am règle bu wax ne lu yàlla digle dañ ko wara def règle bobu la motax légui nan lañ xamé ni tay par exemple bu ne joxe len azaka joxe azaka lan la farata la nan lañ ko xamé ndax règle bi ne lu yàlla digle dañ ko wara def comprendre ngeen voilà léegi euh, loolu kon usul bi règle usul bi mooy lan mooy lu yàlla digle dañ ko war a def loolu mooy règle usul bi léegi yi ci des yëpp ay règle fiqh lañ maanaam ay julli farata la joxe asaka farata la na parce que loolu dañ koo teg ci kaw règle boobu noonu ci kaw règle boobu noonu comme tey buñu nee boroom kër gi lu mu fi bañ du fi am par exemple boroom kër gi lu mu bañ du fi am ñu ne borom kër gi day bañ tux léegi borom kër gi lu mu bañ di fi am loolu mooy règle bu mag bi loolu mooy règle bu mag bi du dëgg léegi règle yu ndaw ndawaan yi mooy ay day bañ tuux day bañ kuy naan day bañ dégg euh, kuy sol euh, kuy sol flottant day bañ euh, <laughs> et cetera maanaam yooyu yëpp muy bañ benn benn yi dangay xam ne kon loolu waroo ko fee def nan nga ko xamee parce que tout simplement dafa amoon règle bu mag bu jiitu woon bu ne la woo borom kër gi loo mu fiy fi am kon loolu mooy règle usul rek règle yi mooy ndaw dawaan yi mooy éléments comme ah kon de waruma ko fay def kon de ah sol folataa du ko fi def ah kon de naan sàngara du ko def et cetera loolu du ko fi indi parce que lan parce que borom kër parce que règle bu mag boobu la donc loolu mooy règle usul léegi nag loolu le fait ñu wax ko kooku règle usul la maintenant par exemple bu ñu ne al umuru bi maqasidiha mbir yëpp ci yéene yi lay aju loolu nag boobaa règle fiqh la du règle usul parce que lan parce que loolu ci jëfi jaam bi la aju maanaam jëfi jaam bi fee yàlla maanaam dañ li yàlla wax dañ koy def bokkul ak li ngay def sa yéene la maanaam sa sa jëf sa fay bi ngay am day aju ci sa yéene boobaa loolu règle fiqh la sauf que ñoom ñaar presque benn lañ. li leen wutale rek mooy bii ci jëf yi la aju bii ci wax le fait que yàlla di wax ak nit ñi la aju yooyu moo règle usul ak règle fiqh yi dañoo jegantoo côté boobu mais aussi amna na leneen mooy règle usul amul exception alors que règle fiqh amna na exception règle usul amul exception le fait que yàlla lu mu wax dañ ko war a def kooku amul exception alors que règle fiqh règle fiqh yi am nañ exception par exemple bu ñu jëf yëpp ci yéene la aju tey par exemple am na exception mooy par exemple jaay ak jënd su ma nee la ah sawaay lii ñaata nga koy jël ñaata lii de yaa ko moom man la nga ne ma waaw man la ñaata nga ma koy jaayee nga ne ma 10 euros après ma jëw daan ne waa léegi jël naa ko leb naa ko dégg nga ne ma waaw ma ne ko 10 euros ah dinaa la jox 10 euros demain ah. nga ne ma waaw suba gi nga ñëw nga daal di jël sa benn kayit bind ci 10 euros daal di may indil <laughs> après ma wax la nga ni ma non. lii lañ waxante woon te kom jëf yi ci yéene yi rek la aju man li may yéene woon bi may wax 10 euros mooy kayit wu ñu bind 10 euros xam nga règle boobu du dox du dox boobu maanaam loolu moo la wut c'est-à-dire que parce que lan parce que ñun dafa am lu ñu xam lu loo xam ne bu ñu waxee 10 euros xel yëpp ci loolu lay dem léegi comme loolu lañ xam ne loolu la ñuy tuddee 10 euros yow boo moo xam yow loolu nga ci jublu wala jublu wuloo ko ci ci kaw loolu lañ dee àtte jublu nga ko ci wala jubluwoo ko ci loolu après beneen affaire la mais ci kaw loolu lañ lay atte yow parce que sinon su dul loolu su dul loolu nit ñi mën nañoo yàq àqu nit ñëpp ci kaw rek xol rek am solo man sama yéene rek moo am solo ci kaw loolu ñu yàq àqu nit ñëpp nit ki noonu par exemple tey ku ne ku ne ku ne ku ne sa jabar ah ana sama jabar ju baax ji kaay waay yo xam nga maa la <laughs> ah fase naa la fase naa la di di di ko reetaan dañ naan ko fase nga ko sharia danaan la fase nga ko parce que su su parce que xam nga lan moo parce que su loolu amul kenn ku ci ne mën naa ñëw fase jabar ji ba pare daal ni noo man jublu ma ci woon loolu dama doon kaf kese waaw wala nga ñëw ne ma ah man de am naa doom ju jigéen man la ah wala ko waaw nga ne ma mi ngi nee bëgg nga ko man ah tabaarkàlla kay moom kay ba mu ko mayoon ma jël nga ne ma am ah may naa la ko après nag nga wëlbatiku ne ma dama doon kaf boobaa déedéet man bu ma ko fasewul sama jabar la ba tey <laughs> ah, mais sama jabar la non léegi sama jabar la léegi man maay xool ba xam danaa ko fase wala déet loolu après man la ah oui. non non maye maye jarul loolu en maye jarul yooyu yëpp jarul protocole yu bari yooyu après man maay xool rek dot bu ma koy jox par rapport ak. waaw su ma su su kii su su màggee yow laa koy may. ah non loolu bokkul loolu ak liggéey rek <laughs> léegi yow bu fekkee waxoo dëgg bu boobaa loolu da nga am bàkkaaru ñàkk wax dëgg. mais may naa la ko mooy am nga droit ñu ñoo ne may naa la ko mooy am nga droit jël yóbbu dem yóbbu. non non c'est que ça dépend parce que xam nga léegi nag loolu après ay yeneen règle da cee ci wàllu sëy daal. voilà ça dépend ci âge bu mu am ci dépend ci circonstance et tout ça yow après yeneen règle la li ma bëggoon a ye wax foofu rek mooy maanaam e-, e-, exception am na ci wàllu. voilà ci wàllu usul ci règle fiqh alors que règle usul yi loolu du am exception léegi ci kaw loolu kon dañuy ñëw insha allah ci règle yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci soit ci usulul fiqh wala ci wàllu fiqh ci li nga xam ne moom moo nekk ci suñu xadis bi insha allahu taala bu njëkk bi mooy qaidatu jalbul manafi' wa dar'ul mafasid maanaam dar wala boog nga ne dar'ul mafasid wa jalbul manafi' mooy lan dar'ul mafasid mooy jañ lor yi ak jalbul manafi muy xëcc ndariñi suñu hadith bi dañ ci jangé ni sharia dafa am benn fondement bu mu tek moy lan bu mu tëral lo xamné règle bu général la yo xamné fune fu mën nga ko ko fa appliquer moy lan moy xëcc ndariñ ak dàq lor jar han darul mafasidi ak jalbul manaafi jalbul manaafi bu mooy bijji <laughs> bijji mooy comme ni acier di def weñ loolu mooy bijji da koy xëcc voilà voilà léegi dar u mooy jañ mooy dàq fexe ba sori ci lor maanaam sharia lan lay def maanaam charia saa yu circonstance taxawee léegi li muy xool mooy est-ce bi lan moo ci jariñe ak lan moo ciy lore boo ko defee mu dàq lor ba pare xëcc njariñ yi léegi nag loolu ah darul mafasid ak jalbul manaafi maanaam charia li muy def mooy saa yu situation taxawee day xool ana lan mooy xëcc lan mooy dàq lor ak lan mooy ci njariñ bu ko defee mu dàqu lor yi ba pare ci njariñ yi ci kaw loolu ñeenti cas moo possible mooy su fekkente ne ay njariñu kese ñoo fi ne wala ay lor kese ne ci boo mu am ay njariñ yu ëpp doole wala lor yu ëpp doole maanaam njariñ ak lor yëpp nekk nañ fi njariñ yooyu ëpp doola lor yi ëpp doola benn bu ci nekk dafa am cas bu charia di doxal tay suñu xolé légui lañ sét ba pare ça dépend aussi motax motax moo du du du lor bu ne motax dafa am benn benn qaida moy moy darul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi' moy lan moy dak lor mom lañuy jital tout temps mom lañuy jital ci kaw xëc ci ndariñ ci kaw xëcc njariñ dàq lor moom moom moom moom ñu mooy jiitu maanaam mooy lan ak tamit euh, euh, loolu tamit incha allah dinañ ci ñëw yooyu yëpp ay règle la yoo xam te ne maanaam dafa am ay règle yu ndaw yu dugg ci ronu règle bu mag boobu ma leen wax léegi mooy parce que loolu maqaasidu sharia la sama borom subhanahu wa taala dani taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan wa ma'siyati rasul dee leen dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla te bu leen dimbalante ci maanaam alal ismi ci bàkkaar wala odwaane ak noono waa marsetu rasul ak mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu bu leen ci dimbalante mooy lan tey bu fekkente ne damaa yor sama benn ah, sama benn CD am na CD bi alquran la ma daal di ñëw ne la ah sëñ bi CD bii de yow de gis naa ni yor nga graveur damaa bëggoon nga graver ma CD bi bu boobaa qaida maanaam règle bi nga xam ne moom lañ doon wax léegi mooy xëcc njariñ yi ak dàq lori day tax ba yow da nga ma koy defal soo ko manee soo ko manee da ngay nekk dans l'obligation nga defal ma ko parce que lan parce que dimbalante ci lu baax loolu règle la bu mag ci charia parce que xëcc ci njariñ gi boo waa léegi ma koy defalal léegi tey su fekkee ne nag léegi damaa yor sama CD musique daal di ñëw ne la gis naa ni yor nga yow graveur léegi dama bëggoon sama CD bii nga gravel ma ko bu boobaa règle

léegi nag après bu boobaa man danaa la dinaa ne la jàppoon naa ni sama waay nga mais gis naa ni nga may taxawoo gis naa léegi ni nga mel ak man gis naa ne nangam ak nangam mais bu boobaa lor googu noonu nga xam ne moom laay jël di la ko wax moo gën a tuuti moo gën a tuuti lor bi nekk ci nga gravel ma ko bu boobaa da ngay obligé yanu lor bi pour en contrepartie ci lor bi loolu moom mooy su fekkente ne situation bi dafa demee noo xamante ne lor yi dafa am njariñ am lor léegi nañ xool suñu xadis bi suñu xadis bi kaw kaw bi bi mu ñëwee di saw saw ci jàkk ji lor mi ngi ci wala lor nekku ci lor mi ngi mi ngi ci mais problème bi mooy lor googu noonu dafa am yeneeni lor yu ko gën a garaw yu fi nekk ba pare mu am njariñ yu nekk ci ñu bàyyi woon ko muy pare comme niñ ko gisee woon bi ñu koy bi ñu jàng baat bi lor yooyu nag tax na parce que bu fekkonte ne bàyyi na ko mu saw ba pare maanaam su fekkonte ne masalan comme ni mu ko bàyyee mu saw ba pare loolu ñaata lor ñoo am benn lor moo am mooy lan mooy saw na foofu tilimal na jàq ji takkal na ko loolu mooy benn lor te lor boobu mën nañ ko dabaatal mooy dabaatal mooy lan mooy jël bi mu laaj ñu wax ñu sotti fa ndox loolu dabaatal nañ ko léegi lañ xool beneen lor ba xam boobu mën nañ ko dabaatal tey bu ñu jàppoon waa ji dóor ko te waa kaw kaw la ñu ko jàppoon dóor ko waa ji dem ci seen dëkk yi daan leen gis ngeen waa jooju nekk fële ca Madina ñu koy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sa ak gaayam yi mu àndal ñooñu ñu bon lañ euh, xaw ma li ñuy wax xaw ma lislaam la xaw ma lu mu doon mais loolu du dara du diine ju baax parce que maa ngi nii xaw ma li may def rek ñu jëw def ma nii niñ ma duma et cetera loolu benn lor la ñaareelu lor bi nga xam ne moom moo ci mënoon a ne mooy buñ koy dóor mën nay daw parce que tamit buñ koy dóor day daw du taxaw te buy taw sobe bi day tasaaroo ci biir jàkka ji tout lor bi boobaa day gën a bari te peut-être mu saw foo xam ne après duñ ko gisaat alors que fii fii muy saw xam nañ ko fii rek la